di masaw yéen journalistes yi vraiment booba léegi gis nañ ni dañuy liggéey liggéey bu am solo. Mhm. di masaw aussi prisonniers ñi nekk ci biir. parce que yàgg nañ fi trop booba léegi ñi six mois ñi plus d'une année ñu ngi fii di masaw aussi parent yi parce que parents yi booba léegi ñu ngi def lépp lu ñu mën. Mhm. et boo xoolee semaine bee passée ils ont libéré benn aussi ñu gëmuñu ko semaine bi bu ñu ñëwee dañuy libéré waat encore mhm. et malheureusement on est là que daal te ils ont libéré seulement huit personnes. bon man à mon niveau man je dirais que y' a problème ñoom ñoo nekk di joué ak nit ñi en fait man loolu laa gis ya a aucun problème ma jox la benn exemple mais les dossiers politiques là nu mu compliqué compliqué ñoom lu ñu bëgg day am ku ñu bëgg condamné dañ koy condamné ku ñu bëgg a relaxé dañ koy relaxé booy ñun ñëpp ci ni may waxee kenn am ci dossier bu normal maanaam jugé guñu kenn c' est simple affaire yi ay kayit la rek ay formalité c' est très simple à régler. bu fekkoon amoon nañu envie amoon nañu yéene génnee booy tey prisonnier ñëpp ku ci nekk sa kanam sa kër ngay fanaan tey donc la moo waral li ñëpp toog fi depuis le matin on la là à attendre sonn xiif mar triste malheureux mais toujours y a rien parfois man je me dis ñun Sénégalais il est ñu cogiter xam ñun baax par exemple dëkk lañu nekk en fait ex li ñu dund un on mérite ça en fait est que tey li du tas yaakaar non maire yoo xam ne depuis six heures du matin ñi ngi fii. tas yaakaar na mais aussi ba nan laa ko mën waxee aussi euh, man sabotage laa koy jàppee en fait parce ne serait-ce boo xoolee ñi fi maire yi fi nekk ay kilifa lañ ay mag lañ en fait. Mhm. tey jii yaay <coughs> doom daf si si doom en fait. et boobu léegi seen doom yaa ngi fi ñu seen doom yi nañu dundee ci biir. Mhm. peut-être xale ngi si biir feebar xamuñu instant bi ci kumpa lañ nekk en fait. Mhm. et maintenant ñun ñu ngi fii toog depuis suuf ba léegi nga xëy ñëw rek eh rentrez chez demee vous revenez. Mhm. et lu ñu wax dafa gaaw ñu ne ñoom jot ñu benn document buy firndeel ni que ñoom dañoo war a bàyyi xale ñi ñibbi. Mhm. est-ce suba nañu jot document boobu noonu. mais toute la journée document la journée waaw fan lay jugee waaw. donc ñun du ñëwee dof et nit leen xalaat na ñoom. te tey huit personnes la ñu libéré. huit personnes imaginez et pourtant le samedi on était là. Mhm. on était là dix-huit heures. te samedi ñoo joxoon nit ñi rendez-vous. effectivement donc ce qui veut que ils n'ont pas respecté le rendez qui qui nous qui nous avait donné le mm-hmm. aussi lundi on est mm-hmm. ñu faussé ñu. Mm-hmm. ñu ne waat suba encore. mais pour diir démb fii la ñu fekk. te ñoo ngi fii. demee woon Soxala laa. du ngeen parce que ñii foo ñu génn. fii seen place en fait. mais waa Kër Massar aussi. Kër Massar yëmbal bari nañ. sama département la Kër Massar. waaw dëgg la xam nga rek ndeysaan mooy département bu mag bi nag ndeysaan. mais ay innocent rek a fa nekk booy booy Sénégal moo leen gën a def defuñu dara. Mm-hmm. donc nañ bàyyi booy Kër Massar yi booy Yëmbal yi booy Géejawaay booy Pikine yi. Mm-hmm. surtout waa Kër Massar man ba ma xool xam damaa sonn boobu léegi nelaw ma. ndeysaan hyperment fatigué. nee nañ ñi fi nekk ñoo ëpp ñi génn. effectivement man mii di wax ak ña ma xam ñëpp ñu ngi ci biir génn guñu. génn guñu et c'est malheureux nii may wax ak yow saa yi ma demee su ma ñibbee nii kon ñoom seen yaay dañu may dar. anañu oh. am na benn maire bi nga xam ne man dama koy daw sa ñaar fan koy daw donc nag doomam donc nañu génne xale yi monsieur le président génneel xale yi génne ñi yomb na trop c'est de l'eau à boire. parce que ñun on est des emplois de justice xam nañu xew ma écoute <laughs> du tribunal ñu décidé du fii mhm. mhm. mu ngi entre Mermoz ak suñu palais bi di nelaw. c'était un jeu. ah mais <laughs> c'est ça moom c'est am sax te ñëpp xam nañu loolu moo am et c'est en fait benn nit nga ngànk Sénégal nii comme ça mhm. donc on en a marre dañoo sonn dañoo damm dañoo taay. tey même ñoom seen biis am na ñoo xam ne tey bu ñu sañoon libéré boo yëpp mm-hmm. la Pape Alé Niang waxoon rek xale yi ku leen ku leen juróon yërëm leen mm-hmm. waaye aussi mère de yi nekk fii ak ñu nekk fii am di jàmm yi billaay ku leen xamoon yërëm leen dafa metti xam naa la moo nekk ci nga am prisonnier ci biir c'est extrêmement difficile en fait mm-hmm. donc encore une fois nañ libéré booy ñibbi suba bëgg nañ suba bu ñu ñëwee mm. à la première heure huit heures mm. ñu dégg ni que fii ca Dakar fii fii rëbës bi bàyyi nañ ñëpp camp pénal bàyyi nañ aussi raison aussi bàyyi nañ ñëpp aussi parce que Reyna ngay bàyyi fii arrêté yeneen raison aussi tu vois ça traîne n'empêche Mbour y a 35 ou bien plus de 35 personnes yu génn mhm. mais empêche encore une fois accélérer la libération des jeunes parce que bu fekkee euh, nu ñu accélérer pour jàpp booy mhm. donc là waxati dara en cas pour dire fu may tëjee mooy mhm. Sénégal suñu Sénégal la te l'avenir d'un pays dafa nekk entre les ëllëgu réew mi donc nañu bàyyi booy mhm. seen place si la seen place mooy ñëw bokk ak ñun mënee mhm. combat bi nga xam ne moom mooy la changement mhm. Sénégal bu gën Sénégal bu baax donc nañu libéré jeunes encore une fois c'est a quoi di leen jaajëfal ñëpp encore une fois vraiment les journalistes. macha allah mention spéciale sëñ Saliou macha allah sànq ba léegi yaa ngi yor parfum bi mu am solo waaye dafa mel ne li nga xamante ne ñoom wax nañ ko appétit bu coupé la ci askan wi. waaw ñoom de ñëw nañ sànq. Uh-huh. bañ ñëwee sànq bal avant ñoo julli. Uh-huh. waaw julli nañ ba pare fi mu ne nii waaye la ñoom génn nañ la ñu wax mooy. Uh-huh. fi ne nii euh, lañ leen joxoon digal tey pour ñu génne. Mm. génne nañ ko joxaatuñ leen digal ngir ñu génnewaat. ndax pénitencier bi génn léegi loolu la ñu wax. nee moom fi ne nii. amatuñu ndigal génn waat nañu dem ñibbi ba suba ci midi ñu ñëw ñu continuer waat nee nañ suba incha allah am na libération waaw suba ay midi mhm. incha allahu rabi ci kàttanu yàlla man nag li may ñaan mooy bu mhm. fekkee ñoom am nañ yéen a génne détenu yi mhm. ñu ñuy dàq nag ba suba ginnaaw suba bu fekkee génn la nañu génn détenu bu fekkee jàngat gi moom mooy man moom fu mu ne nii juli naa timis ñan naa yàlla suñu borom waaye nag yal nanu yàlla dimbali ba lu nu wax ñu koy jëfe daa a découragé. ah nooy def yow yaa ngi teg sa bernde yu bari pour détenu bu génn nga jox ko mu xéewalu fi mu ne nii ñun ñoo ko mujjee séddoo suñu biir loolu yàq la ndax fi mu ne nii sa fukki dërëm sa ñaar dërëm yi nga joxe ba ñu jënd ci ay chandise ak ndox yu sedd ak café Touba mhm. ñu toog di xaar détenu yi génn ñu jëndal leen ay dàll fas yéene leen ko jox te yàlla rek tax ak jëmmi Seydina Seydina Ousmane ak Sénégal gi ñu xeexal mhm. ñu toog léegi nag ñu ne ba suba ndax fi ne nii ñoom joxuñu leen digal juge joxuñu leen digal ngir ñu génne euh, détenu yi dàq nañ ñu nag nee nañ ñu nañ dem ba subaak jàmm xam naa peut-être mën naa am ñu dàq ñu dàqum nante ngir ñu ñu dem bu ñu demee ñu génne détenu man jàpp ma lool damaa jàpp ni fi mu ne nii la ñuy la ñuy def ci seen xol bu fekkee yegg na ci seen xol nañ génne détenu yi fii détenu yi fi nekk defuñu fi dara amuñu fi benn njëriñ lu dul gën a lu dul tëdd di nalaw balaa càng nañ leen bàyyi ñu libéré ñu ñibbi seen kër ku ci ne liggéey Sénégal jëm kanam waaye ñu toog nii rek xoolal sunu ndey yu baax yi sunu yaay yi nga xam ne dañoo toog sonn bay bëgg a dee ah maire bi maire bi man maa ko nax léegi ne ko kaa ñu jox la paas nga dem ñibbi ba suba ak jàmm mu ne du dem fi ne nii man mënumaa dem ba ko fi ndax mën na ma way jur waaw naxtaan ak moom fexe ba dugal ko ci oto bi naxtaan ak moom mu ñibbi ba suba ak jàmm mhm. mais daal li nga xam ne moom la président de la république wax Macky Sall mhm. nañu bàyyi détenu ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ne ci biir prison bi di directeur yi nanu fexe ba ñu nekk ci biir nañ leen génn ñu libéré wu njaboot gi mën na ne ci jàmm xoolal sunu ndey yu baax yi sunu yaay yi nga xam ne doonoo sonn ñii sonn nañ waay si heures du matin la ñuy jóg ñëw toog fi mu ne nii julli nañ timis ba pare nee nañ affaire jeex na ñii génn jeex nañ nañu dem ba suba ci midi fi mu ne nii ñun journaliste tamit nan dem ba suba ak jàmm rek léegi bu ñu demee nag ba suba ak jàmm ak salaam ñu ñëw xool nañu génne député yi waaye yéen it yal na leen yàlla defal jàmm yéen journaliste yi kenn amul seeni i fay mhm. nëbboo leen tax ngeen ko xamul mi nga xam mhm. tax ngeen ku seetaanut actualité mhm. boo taalee sa YouTube bés direct da nga gis siti ngàcce ngaalaama waa ji nee na moom bàyyi na seetaan télé waaye man it dinaa wàññi li may seetaan télé tey seetaan seeni i sit ndax yéen jar ngeen a jàppale jar ngeen a dimbali jar ngeen a suturaal jar ngeen a placé placement bu baax ngeen ni mën a liggéey seen i liggéeyu bopp waaye boo leen taxawee ne ñu dàq leen gauche boo leen taxawee gauche ñu dàq leen droite kañ ngeen am jàmm yal na leen yàlla defal jàmm nag sun borom dimbali noonu ñun ñëpp ñu ñëw suba incha allah gaa yi génn yal na yàlla def jàmm kon nañu ñibbi ba suba ak jàmm jaa ngeen jëf